Euh, dañu japp ne buñ la fi tégué pour nga mëna liggéey liggéey bi ci war da ngay dem sékk waxtaan ak ñi nga xamné ne ñoo ŋànk mbir mi loolu motax ci suba ak légui man ak ñi nga xamné ne ànd naak ci liggéey bi ñu fas yéene ci terrain bi gis ñi nga xamné ne ñoo ŋànk barab yoy ñu mëna waxtaan ak ñom jafe-jafe yi ñu jundul liñ ci jublu nak nek xam jafe-jafe yoy fu mu toll man ko am am ci ben gis-gis bu ñëk waaye gis-gis boo xam ne dañ koy mottali ci ndaje moo xam ne dama leen ci woo fële ci ministère bi ñu toog waxtaanee ko bu ko defee ñu mën koo tënk fukki fan ak juróom yu nekk ñu mën ci ubbi kayit googu ubbi bi am bu fekk ba ba mu amee ñoo xam ne dinaa leen ko dénk ba pare ñu ko doxal bu ko defee man fukki fan ak juróom yu nekk ma xam mbir moo fu mu toll parce que noonu laa jàpp ne problème bu amee noonu lañ koy saafare waaye lu ko moy dañuy waxtaan rek jóge fi daal di tënk daal di dem te buggee moo ko woon noonu modernisation secteur bi mooy li nga xam ne fa la ñu jëm euh, kenn ku nekk xam nañ ne élevage cosaan la ci Sénégal sun maam yi ak sun maamaat yi am na nuñ ko doon defee waaye jamono dafay dox bu doxee nag itte yi dafay yokk gis-gin yi dafay yokk bëgg-bëgg yi dafay yokk ndax ci misaal fële nga xam ne mooy Jolof cay jamono nag wi bu daan wuti ba ngoon bu nawet sax jotee fa ñax gën a bare xeyna na ñetti litre meew lay mën génne waye ay xaral yu bes amna na yo yoo nak ne nag mën dem ba juroom ben wala lu ko upp ci meew donc lolu nonu nak bu mana bu ñu demee bu mu wara am ay xaral yu bes moy tax mu mëna am bok na ci lamuy dundé dunde na ci weru wergu yaramu nak bi bok na ci la nga tay bu nak wi génnee fa mu nek ñu war ko indi war ko jaay fami nek mu melne ne bi lolou lepp dañ ko wara mettre ko en ensemble ensemble de façon à ce que buñ ñu sukkandikoo ci xarala yu bees yi nga xam ne mënate mënate leen élevage bi gëna fim fi mu nekkoon ñu mën ko yóbbu feneen donc axe bi nga xam légui fi lañu tek sun tank suñu tànk bëgg ko liggéey mooy yeesal jumtukaay yi yéssal jur gi yeesal niñ koy défé li système d'élevage parce que amna ci solo lolu lolu dal moy li nga xam moy la invité ñëpp muy filière nak bo xam kenn ku ci nek amna fo ci taxaw fokk ala kulli hal fa nga tax nga mën a yeesal barab boobu ba mën a yeesal gis-gis bi pour que ñu mën a ànd lépp mën koo matale loolu daal ci laay invité ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci filière ci ci secteur élevage